jërë ngeen jëf salaamaaleykum mbokk yi xarit yi taamu seen émission boobu fàqat ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen ñaanal suñu borom defal leen jàmm moon naa leen gën ñoo gisee mais maa ngi leen di bu baax a baax di ñaan suñu borom def jàmm ci réew mi waaye tamit di jaale tamit suñu benn yaay suñu benn yaay bu fi jógee ñu koy jaale muy yaay maamalamin Lamine yaay Serif yaay Taale di ko jaale jàmm gën si kàmbaaw gépp muy sunu yaay joo xam ne yaay ju baax yaay ju fonk njabootam waaye fonk ay dëkkandoom ñoo ngi koy ñaanal sunu borom xaari ko àjjana te yërëm ko. bu baax a baax ak kum fa fekk mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñëpp di nuyu diaspora bi di nuyu àdduna di nuyu Sénégal rawatina suñu xarit ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax ku ci mel ne Doumbouya Senghor suma xarit Adama Sita Abdoul saw maa ngi lay nuyu Seck Ndaanaan maa ngi lay nuyu bu baax a baax ah di leen nuyu doora maa ngi lay nuyu di leen bëggee yéen jasporaa bi yéen ñëpp di leen ñaanal suñu borom defal leen jàmm mbokk yi fi ñu toog nii Sénégal xam nañu ràññee nañu ko mooy tableau ah di di foo xamante ni tey ba jàmm gën sosoo ba tey musoo musoo dégg ku tudd turu jàmm gën te tudd turu tabla xaadim mu nekk lu yàgg ah, mbokk yi yooyu yëpp danañ si del si sunu waxtaan bi nga xam si ni moo tax ñu ñëw fii tey ci jàmm gën ñu seq kook ak i ndaanaan waaye seq kook tey ak i boroom xam-xam seq kook ñoo xam tamit xam nañ dëkk bi waaye xam nañu jàmm gën waaye tamit am na lu ñu xam ci làmb ay eh, balaa ñoo def dana damay nuyu suma jàmbaar ji suma yaakaar tey ak ëllëg muy sëriñ si daar xuraan di ko ñaanal sunu boroom defal ko jàmm suma pàppa suma wéyjur suma lépp ma lay ñaanal sunu borom defal na jàmm laay bu deev jërëjëfati Fallou maa ngi lay nuyu. santaat yàlla bu baax di julli ci bi këram sunu sëriñ Baye Sidi maa ngi lay fay Fallou. Fallou tey fii ñu toog nii mën nga ñu wax fi ñu toog nii tabla xaadim nga wax ñu si tabla xaadim. fi ñu toog nii. Hmm. ma Fallou fii boo ko laajee dama la ci mën a wax ak yow lu bari. Hmm. Fallou ñun tabla xaadim fii lañ màggee fii la lépp soxla ko fii la lépp soso surtout ñii fii ñu taxaw nii nga gis tableau bii nii. Hmm. fii lañ dooree fii lañ nekkee lépp si la fii la mbapatee fii la defee léppam. ndam buñ mos am fii lañ ko feetee si digg télé bii ngay gis ni. carrière Siteu yëpp ndam looleen leen am fii ngeen ko mujj feete. fii lañ ko feete benn lañ ci feetewul mooy suñu victoire bi ñuy yóbbu cant gi Grand Théâtre mais Siteu ndam bu mu am fii lañ ko feetee. ci biir dëkk bi ndax amuñu lu dul dëkk bi Fallou. balaa ñuy dugg si waxtaan bi kan mooy Siteu parce que li nga wax ne ndam li nga ndam boo leen am fii ngeen ko feete mais ñu bëgg a xam kan mooy Siteu ak Siteu fan la dooree ba doon champion. dëgg la Fallou yow loolu boo ñu ko laajee République am contentement bu baax waaw ndax Siteu Siteu mooy kenn koo xam ne ndaw la nekk ci biir banlieue bi dëkk ci dëkk boo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw xam nga li ma la isa mhm. mooy amul autorité yu leen dooleel mhm. Siteu moom gis loolu nekk ndaw di fayit ñun Siteu bu ñu mbapat la ñuy xamal lii muy dund nii di fayit di reyante di ñafe pour dëkk bi ñëpp xam ko drapeau dëkk bi yëg ci kaw pour social mën fi dugg xéewal mën fi dugg ñëpp mën a jàppalante Fallou Sida fii la léppam dooree fii nga toog nii diñu laaj nii. Mhm. fii la léppam dooree. loolu laa bëgg a xam ba tey fi mu agsi nii doon champion. Fallou ñun fii nii soxna si taxaw nii. Sida saa yu musaana bëri ji mbapat ba ñëw. wala ñuy waaje dem mbapat fi lañ koy waajee. Sida mooy bu weesoo dem entraînement am nii fii la toog fii lañ koy dundee fii lañ defee lépp. Fallou fii ñu toog nii tey da nga soril suñuy xel wala sëñ Tuubaa ndax ñu toogee fii suñu xel lay dem si foo ndax ñoo ko doon dundaloo mhm. bilaay walaay dem si yàlla si njaga degaa mhm. waaw di leen ñaanal yàlla suñu borom yërëm leen mhm. waaw loolu lañ fi doon dundandoo fii ndeysaan yëpp Baye Fall ma dund waaw xale yow mais xam xale bu nekk mooy si àdduna buy dund dina jaar si ndaw mais yow ñun suñu ndaw yàlla daf ñu teel ñu boole Serigne Sidi Mbacke alxuraan. Mhm. sunu wasila. Mhm. waaw mu ñuy teg si yoon xamuñu woon lu dul dem daayira ñëw. Mhm. daayira lool ñu lu ne xëccoo cant xëccoo tee xiin. xam nga xëccoo ay baax mais lépp lu mënti xew faalu mën na la xoolal fii la ñuy ñëw toog bu ñuy demee cant bu ñu ñëwee fii la ñëw toog bu ñu ñibbi bu ñu bu ñuy waaj a dem fii la ñuy waajee dem. kon fii tey bu ñu fi toogee nga ñuy laaj fii rek suñu xol day sori daal. te Fallou carrière Siteu naka ngeen ànd àndee ci carrière Siteu naka ngeen jàppalee Siteu ba tey Siteu euh, nekk grand champion. waaw Fallou Siteu ndaw la woon boo xam ne bi muy door moo kenn amul gëm-gëm ni Siteu war na mën a nekk champion. Mhm. Fallou ñun ñuy gëm doon doon nekk suñu gàlle yi bu fa benn kilo ceeb nekkee sax jaral nañu soo ñu génne ko dem sombil ko Siteu mu lekk ñu ñun ñu ceene lépp ngir am yaakaar ni ëllëg Siteu yàlla war na ko mën a def champion ñu gëm. waa dëkk bi gëmuñu ko woon ñu ñeneen ak ñeneen si biir làmb tey boo seetloo gëmuñu woon ni Siteu war na mun a nekk champion mais Siteu yow ñun ñi ko jege yàgg a ànd ak moom foowandoo moom fu ne mbapat moom fu ne ñu ànd fa moom mu bëre fa mbapat ay tournoi loolu ñu xam nañu Siteu li nelaw si moom bu ko yee bu ko yàlla dimbalee fépp fu ñuy dégg champion dinañ ko fa dégg. Mm-hmm. ba tey moo waral lii nii tey ngay gis nii. Mm-hmm. tey dégg nga làmb. bu ñu duggee ci biir arène nationale dégg nga coowal làmb ak coowal amateur yi Siteu Balla Gaye Siteu Modou Lo waaw yooyu noonu noonu ñu lay wax yëpp làmb la damay fàttaliku moo bi Balla Gaye di bëree Eumeu Sène boobu fee lañ toog Balla Gaye bi bëree Eumeu Sène boobu fee lañ toog Siteu war a bëri ji final ginnaaw raay ñun ñun ñëpp dañoo toog fii di xaar Balla gay bëree ba pare faral ko di ko supporter kon tey amaana tey moo bu yàlla dogalee ñu dem ba ñuy wax Siteu Balla Gaye wala Siteu Modou Lo ah, wala Siteu Tapha Tine xam nga loolu xéwal na quoi maanaam tey dañuy jàpp ne Siteu moom mbëbëtam yàlla suñu borom mi ngi koy yegalee mm. waaw donte lépp yeseegul mais ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yegale ko quoi ndax mbébét bi yow ñu ngi koy gis mu ngi yegg waaw mm-hmm. jërëjëf Fallou xam naa damay posé yow dinaa ñëw ci yow ma jox ah Thier Thier mu ñu jéggali sunu waxtaan ci Thier gannaaw bi ñu la nuyu nga nuyu mbokki internet yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ci Leral TV Leral point net Leral FM 96 point 1 Dakar ah, nuyul mbokk yi lay seetaan. di sant sunu ñaari waajur di sant Serigne Thierno Mbaye Alxuraan wér waaw coowal làmb. yéen ngi koy dégg Siteu Modou Lo Siteu euh, euh, Balla yooyu yéen a ngi koy dégg. Mhm. yan kàddu nga ciy wax. waaw ñun moom amuñu kàddu yu ñu si wax mu ne lu dul Siteu fi mu war a jaar yëpp jaar na ko li mu war a def yëpp si làmb def na ko dafa jot dafa du jot de comme li Balla wax keroog rek bi mu ko woowee si plateau ñu kii bégaay bi. ñu ne ko carrément Balla Gaye ne ko da ngaa yegsi ndax da ngaa bëleeg la déggee def lu kenn deful mhm. yegsi nga amul chance bu ñu may waaw kon moom Balla Gaye bëgg na loolu moom kon waa làmb kon amuñu lenn lu ñuy def lu dul jàppale si Siteu ndax Siteu dafa sonn ci làmb dafa am ñeneen ñeneen ay ñeneen ak ñu ko yaakaar ci ginnaawam ban coono la ban ban coono la def ci làmb non Siteu dafa def ci làmb Fallou Siteu Siteu bilaay li mu am nii bu ma la waxoon fu mu jaar nii bëriwul góor yàlla yu fa jaar de fan la jaar li la sëñ Fall wax léegi rek fii nañ doon fanaan ba fajar mais maanaam jeunesse moom jeunesse la mais lépp kenn du ko wax mais ñun fii nañ doon fanaan ba fajar amul lu góor di def te defuñu ko nekk ay xale yu ndaw ngir si tam mbapatoo mbapat parce que maam Cheikh Rafal dañ doon dem ba si ah, bii laay walaay fii nañ doon toog ñun suñu biir ñun seul di bëre di teg xaalis xaalis di bëre ba Daaru Salaam sëñ bi taggal ñu fa premier tournoi ñu bëre ba di dafa jël ay finaal ñun ñëpp di ko ànd ba premier mbëpp tam ñu fay ko 750. lépp yéen a ngi ànd. lépp ñu ngi ànd nekk ay nekk ay booy ndaw. parce que maam Seydou Fall. Hmm. fii waa jàmm gën ku dégg li may wax di nga xam li may wax dëgg la. ba ci maire yi toog nii ñëpp ñooñu yar fii lépp fii dañ ko defee tabla xaatim fii ñun daaw ñu génn comme génn di dem di yéen yi non non ñun suñu lépp sëriñ bi la ba pat nekk suñu bopp ñuy liggéey liggéey ñu nekk si leneen nekk si leneen. waaw si dañ nekk tamit si lu nekk ñun tamit ñu nekk si ginnaaw dem ba gars yi dañuy cotiser chaque dimanche 1000 francs 1000 francs ay sekk ay Fodé ndeysaan dem si yàlla si ay njëge daga mhm. yàlla na yàlla yërëm te yàlla amiin amiin bar Seydina Mohamed mhm. billaahi gars yi yëpp nañ ay Omar Faye ay Papa Dof gars yi araba ñëpp ay Birane ay dégalanci gars yëpp di si jàpp ñëpp ay bari la faar Ibrahima sunu mag ñëpp di si jàpp chaque weer ñoo koy jënd ravitaillement yóbbul ko këram këram billaay walaay wa taalaay. bu njëkk nag boobu bëreegul arène. non non boobu xaajuñu sax booy bëri arène non non boobu xaajuñu booy bëri arène xaajuñu ñoo xamuñu woon sax ñun dinañ dugg arène. Mhm. mais lépp ñun ñu ngi góorgóorlu di jéem ànd ak moom waa jàmm gën bari bu ñu buñ nangoo tey la. mais boo déggee ñu ne Siteu ñuy coow ñuy dox ci Siteu Balla Gaye loolu lan la lay def yow. mais tamit du dara dul sant yàlla xam ne ñun suñu mbër bi ñu yoroon ah. ñu tamit yorewuñu ko yaa fuus yorewuñu ko ñàkk jom ba léegi nii ñu waxee sunu fulaak sunu fayda lañu ànd ak moom de mu gisee lu mu defu dañ naan ko carrément eh lii ak lii maguñu ñoo fawandoo ñoo defandoo lépp bu jaree ñu wax na lii lii lépp dañ ko koy def waaw te dañuy déggal force mu koy neex mu koy naqari suñ baam heure bu ma neex laay génn këram heure bu ma neex lay dugg këram. tey coowal Balla Gaye est-ce que ko. ñun coow bu nekk attan ko a neex. loolu a neex ñu jox ñu avance bu Balla Gaye jox ñu avance bu Modou Lo nga xam ni coow bu nekk atam nañ ko. ngeen lekk avance bu Balla Gaye lekk avance bu Modou Lo. doo ko fa am sunu moo fa nekk li jaam yi soxla dañ koo soxla li booy soxla xam nga maanaam moom dafa dugg Pikine ah na passé Thiaroye nii pont guy ga ñëw tam jox ko ñun tamit jox ñu jox ñu luñ am ñun na muy neex muy naqari de mbaaw la yam Pikine mbaaw la yam de. muy Modou loo muy Balla Gaye ku ñu ciy bu la neexee neel say supporters ñu toog say kër yow kese nga ñëw ak ñu nga àndal ñun ñu raser la stade bi yéen seen bopp giseen ngeen seen bopp kenn du leen wax barke suñu fàllu ñoom ñëpp nañ toog seen supporter waaw waaw ay tamit Balla Gaye tamit moom tamit ñu ngi ko koy waxaat dañ jox luñ fa am ñoo ko fa am moom nante la xam na lépp mhm. ñoo ko fa am dañ ko jox jërëjëf jërëjëf kookoy mbokk yi kookoy eh, Thierno tey maa ngi ànd ak eh, suma jigéen suma xarit maam Oumy eh, di la ñaanal sunu borom defal la jàmm njaboot ji sunu borom teg ci loxo yow yow mention spéciale nuyul ma càllalum nag temps dama koy woo rek mooy loolu riir mi tey li nekkoon Pikine lépp daanaka Modou Lo jeexal na ko roi des arènes ñoo ngi dégg roi des arènes Siteu Modou Lo mais loolu naka ngeen ko jàngate Modou Lo tey moom bu jëlee Siteu yow loolu làmb reconnaître na ko ndax Modou Lo tey champion bu nekk si àdduna ñaan nga yàlla reef ba Modou Lo mooy surtout mu rawatina mu yor roi des arènes jeexal waa Pikine te ñun ñu bokk département Pikine bu ñuy dégg dafa jeexal waa Pikine ñu dañuy am leen loo xam ne. kon da nga da jàpp ne ba léegi eh, eh, Pikine jeexagul. parce que eh, Pikine Pikine mbaaw lay am. waaw ah non Pikine jeex. kan kan moo des kon. borom dëkk bi yàlla nañu yàlla min bi borom dëkk bi mooy il est temps mu bëree combat royal. Mhm. waaw mais si te ñi bëree combat royal yëpp gënuñu ko mérito gënuñu ko yellool mooy amaana yàlla suñu borom moo dogal ñoom ñu war ko bëree bëree ko yàlla leen si yàlla defal jàmm mais Modou Lo mbokk gi gars yi di wax di gars di wax lépp dëgg la loolu du mës a dañ ci àdduna ndax lu yàlla dogal la waaw ndax yàlla suñu borom lépp lu mu dogal si jàmm dafa jiitu juddu. Mhm. tey kadeer bu taxee raxu Modou xamul li ma lay isa mhm. yow loolu noonu mbégte la fierté la mhm. mais teewul tamit Modou Lo tey bu tollee si war a may Siteu chance yu bëre non da koy may te du yàq dara mhm. waaw du yàq dara du amul lu muy yàq dara daal si mbokk gi non non gisuma loolu ndax tey Kader yow tey yow ñun Kader moom boobu Siteu dee bëree Modou Lo yow ñun sax jégal nañ ko ko yow mooy ko na toog parcelles yi indi Modou Lo ñu xam ne làmb moo demee noonu c'est le sport mooy sport chaque jour nga gis loolu loo xam ne nii leneen la si biir sport réalité la keneen na toog foofu noonu Modou Lo may ñu chance ñu bëree moom Modou Lo bu ñu may chance loolu garaawul. pare ngeen parce que euh, Ama Balde jaar na ci Modou Lo échec Boy Niang jaar na ci Modou Lo échec ngeen bëgg a indi yalmin bi. waaw yow da nga ne Ama Balde champion la maa ngi koy nduyu ne Boy Niang maa ngi leen di nduyu ay champion lañ ay jàmbaar lañ mais ñoo yow ku si nekk dafa am lu yàlla def si yow ñooñu at duñu benn. ñu tax nga wax loolu. non duñu benn Fallou. ci làmb. ci làmb. waaw ayca. xam nga ne tey bu ma la waxee duñu benn waxee ma la ko maanaam si leneen lu lu kenn làmb. waaw moo tax ma ne la ci làmb. waaw ci làmb. Mhm. maanaam tey ñoom liñ ñëw. tànte ko tànte ko réussirul surtout mën na ñëw tànte ko réussir ko. Mhm, la wax ci loolu. non lu leer la wax. ak suñu bàmba da nga ni Ama ni Boy Niang bokkuñu bëre bokkuñu ni ñuy doxtee bëre te si dama lay xamal leen de bëreegul arène de parce que alxuraanul karim bëreegul arène. bëreegul arène de. li mu bëreegul arène. li mu bëre mbapat bëreewu ko arène barki Mouhamed lu mu bëre mbapat bëreewu ko arène bu ko bëree woon bu nekkoon ligue simple la nga xam ñoom ñëpp nañ raasaloo benn ngoon waaw nañu nungoo génne di ko jox rek waaw ku mu daan ñu ko nga xam. jërëjëf Fallou nga fi ci waxtaan bi dafa am solo. waaw Galas man tey boo gisee moo mu bëree Modou Lo wala Balla Gaye dama xam ne Siteu bu bëree ñooñu. mooy li nelaw si moom dina yeewu. kon nga jàpp ne fi mu jaar ñëpp buñ mujjee ci Lac de Guiers. loolu Fallou nekk si moom waneegu ko si arène bi Fallou Siteu mbër kaamil la barki Seera Fall saabu nag du fóot boppam. Mhm. saabu du fóot boppam. baax bu ñu taxawee di la wax si Siteu amaana sax ñeneen dinañ ko dégg yaakaar ne leneen mais ñun Siteu dañ ko topp bi ñuy xale ba léegi. Fallou man kër gee ngay gis sama yaay fa la dëkkoon. Mhm. foofu lañ doon dajaloo fañ doon defee lépp. mooy kër gu zone gi kër gu zone gi dara a jël mbapat ñi ko yóbbu seen kër man la koy jox maa koy yóbbu suñu kër fii ndax ñi moo ko yóbbu seen kër ndax boobu noonu surtout doyul li mbër yi seen waa kër amuñu yàq ni kii war na mën a jël drapeau xam nga yow tey ñu ngi yaakaar surtout mi ngi dox si leneen loo xam ne ñaar fayda wala leneen mais amaana demewul noonu Fallou bilaay walaay taalaay ñu ñëw ci Modou bi Fallou Modou Lo ñu war a may chance li nekk ci booy ñaa nekk ci Ama Baldé yooyu yëpp lu ko raw mu ci mbër mi. wallaahi Azim ndox du bëree yi wax na la ko léegi du benn. Hmm. ndox du bëree du benn Fallou. da nga ne ndox du bëree du benn. nit ñi duñu benn jikko yi duñu benn. Hmm. Fallou gis nga juróomi baaraamu doomu aadama yi ni mu wuutee. loolu hmm. doomu adama yi wuutee. mooy amaana nag Siteu ko xamul moo ko umpale mais ñun ñi ko xam umpale wuñu ko Fallou Siteu li nekk si moom barki alxuraan boo ko joxee yooyu. nga xam ni làmb làmb ñibbisi na jaamagon. nga ne buñ ko joxee Modou Lo. buñ ko joxee Modou Lo. waay waay waay waay sëñ Fallou Tooma mais nag men men Modou gis nga ni mu def Pikine wala duggaat mbaaw jàpp jàmm gën non mais Fallou Sénégal lay seetaan de. Fallou <laughs> Thier. seen ji. Fallou Thier dala ko wax léegi léegi Modou Lo. te Zarko la yem. moo ne tàllal rom police caaree wàcc pont dox ñëw c'est que jàmm ngeen li ma la wax si suñu commencement wax man la jàmm ngeen kàmm la Siteu di bay waaram di jéem hmm. lu mën a lu mënul pour yëkkati ko pour lu mel nii yow li ma doon wax lii mooy firnde bi hmm. tey dafa jot Siteu bëre roi des arènes ñu xam jàmm ngeen fan la bokk si biir gox yi Fallou jàmm ngeen département de Pikine la mais considéré wuñu ko amuñu autorité amuñu kuñ jàppale ba Siteu buy bëri di combat amul ku koy may 1000 francs ba bu nekkul ay gaañaane mu ñooy jël seen i fukk ah ay sekk yenn gaa yi sekk maa ngi nuyu bu baax sama doom. Mhm. waaw maa ngi nuyu di ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm. ñoo ngi dégg ñu ne sekk dem na sekk dem na Dumbuya Senghor dem na ñu leen di ñaanal suñu borom defal leen jàmm ak mbégte mais tey Siteu jël ku mel ne Balla Gaye wala jël ku mel ne Modou tey war a ñi war a nekk ci ginnaawam buñ ci gisatul sekk jàmbaar ji gisatuñ ci eh, ki nga xam ne mooy Dumbuya eh, du am problème. est-ce que foofu problème mënu faa am ci làmb ndax bu ñu waxee dañ ne euh, am na ñaar ñu moo du ma wax seen tur nee nañ ma ñu gën a nekk jàmbaar ci kanamu Siteu dem nañu. kon jàmbaar est-ce que amati na fa. dëgg la Fallou Fallou foofu jàmbaar du fa jeex. bilaay walaay taalaay Fallou Fodé bi mu demee leneen loolu wax. dem si yàlla ñu ngi ñaar yàlla jégal ko ñun mu wax ñu duñ tudd loo xam ne te duñ ko tey dafa nekk loo xam ne muy Seck mooy Abdou Seck. moo di Omar fay di Papa Dof di Ayawaar di Thiel Muuma di Petit Mayga di Birane di keneen yow tey Siteu dafa am ñoo xam ne ñoom la ko yàlla booleel bi ñu nekkee ay xale ba léegi ñuy dund amaana ñooñu lañu gis ñu fës rek ñooñu ñooñu lañ gis ñu fës tamit yow ñoom ñu jiitu yàlla sunu borom jiitu leen jiital leen ñu nangul leen ko xam nga ma ne sa ku ku si mel ni Seck ku si mel ni yaa Senghor ñu leen ñaal mais tey Fallou Siteu bu ñëwaatee nga xam ni Siteu borom dëkk la borom dëkk bi lañ la wax de Fallou wax na ay borom koñ beet borom fii borom fii borom dëkk bi lañ la wax Fallou kooku noonu Fallou Siteu bu ñëwaatee nga gis leneen sekk nag sekk nag moom. mais dinañ gis dinañ gis yeneen kanam yoo xam si ni yu mel ne kanamu sekk gi ni mu daan mel ci si ginnaaw Siteu. Eh, eh, fii fii nii ay naaxu sekk la am ay naaxu dumbuyaa mais sekk dafa dof moom. mais fi ñu ko gën a dooparal ñoo newoon ci ginnaawam toog. waaw xamal ni ñu ko gën a dooparal ñoo nekkoon ci ginnaawam toog te Seck moom xam na loolu xam nga la mais Seck ñun instant bi ñun xam nga lan koy kii waay lan koy ñaanal wër na fu mu nekk mu am jàmm ak dumbuyaa bu baax a baax a baax moom lañ koy ñaanal. même caatu Fora ñu koy nuyu au passage. Fora waaw kooku waaw suñu doom la moom. tarkindaa yaa ngi tarkindaa yaa dem de. waaw waaw mooy yoon ñoo ko fa am ñoo ko fa am ñoo ko am jàmbaar yëppay dem bu soobee suñu boroom barki alxuraan mais tamit kaa ma xamal la de waa lamb ñooñu noonu di la wax loolu noonu ah billaay walaay bu lamb si ta taxawaatee dañuy xam ni ñoom seek boobu yeneen seek nga fi ñoom seek amoon nañu fi problème peut-être barki suñu bamba problème mbapat ñoom ponkal ñëpp am problème ñun ñëpp doon ànd sax lañ sax ñoom njëkk problème ñu tëj ñu suñ ñu génn ñoom ñoom problème ñu ñu nekk fa quatre ans six mois yëpp ñoo yor si mbapat ba nu mu duggee arène ñoom ñuy doog ñëw. ñu ñëw suñu nit lañ ñoo ko doon dem ñu jiital leen toppaat seen ginnaaw noonu moo tax ñoom lañ si xamoon muy dem si yàlla si Fodé ak seek ay Papa Dof ay Awaar ay Omar Faye gaa yëpp ni ñàkkaat benn ba tey Siteu di Siteu bu Seck demee Seck ngi fi de Seck demul de parce que Mouhamed Seck ngi fi. Seck ngi fi yow xam nga de Seck ngi fi Seck ngi fi de. non ñii seetaan ngay waxal ñii seetaan ngay waxal. laa wax waa Balla Gaye Seck mi ngi fi. ay sek ay ay ñu ñëpp ay sek lañ mais boo leen gisee ndeysaan. waa Modou Lo tamit ñoom xam nañ. ñooñu noonu maanaam ndeysaan Modou man dama ko yàgg supporté ba tey ñi may waxee dama koy supporté mais dafa am loo xamante ni moo ñu ko yoree suñu wecce dañu ah, ñun ñoo ko am. di ko xamal ni ko Petit Lo moom ba muy liggéey mécanicien camion Dalifor ñu ma doon dépanner Petit loo xam ne lu ma wax bu baax di dépanner suñu camion. bilaay walaay boobu sax kenn xamu ko si làmb laa la wax Petit Lo boobu. ñu koy woowee Ameth Lo. Mhm. kooku sama fils la tamit. dama koy nuyu bu baax waa gis naa mu takk soxna ko. waaw di ko félicité. waaw di la félicité. <laughs> Petit Lo eh. waaw. Fallou yaakaar naa ne ñoo ngi nuyu Petit Maïga. sëfëru Siteu ñu ngi koy nuyu booy maa ngi koy nuyu baax a baax alaaji maa ngi leen nuyu baax a baax Fallou coowal làmb dégg nañ boroom xam-xam ku nekk ci làmb waaye xam làmb Moustapha Gueye dégg nañ ci làmb mu wax si Siteu Balla Gaye waaw ci yéen loolu noo leen ko jàngatee. waaw Fallou Tapha Gueye moom champion la li mu def ci làmb jafe na nga gis mbër def ko li mu war a def def na ko mais moom mooy analyse la taxawee rek xelam lay wax korog na ñun seetaan nañ ko sax ñun ñii di wax ak mm. toog nañ seetaan mooy émission boobu mu toog ñoom Serigne Ndiaye yooyu noonu. Mm. mais Tapha Gueye moom li mu wax war na ko wax ndax moom day analyser. waaye mhm. nit ku nekk sa analyse ngay wax rek. Mhm. moo sa analyse tamit mën nga ko wax fekk nekkul ni yow moom moo war a am quoi. Mhm. Fallou Siteu ba kuy wax moo bala Gaye làmb boolewu leen ah te coow làmb mooy nii nii nii nii woon nii yow loolu Fallou da toog waxee nu la neex di xàllal ñi la jege. Fallou mais tey làmb tamit Fallou moo toll foofu. gaa yi nii Fallou. làmb làmb sax boo xoolee léegi coow la ak maas la amul ak dabante coow la. mooy ñi ngay gis ñuy analyser làmb yëpp Fallou ku si nekk am nga sa mbër moo xam ne boo sañoon mu ub làmb. Mhm. mais yàlla mooy dogal Fallou Siteu fu mu yegg si yàlla moo ko fa indi yaafuusam andiwu ko fi ñàkk jomam andiwu ko fi. son heures Tapha Gueye yooyu noonu bi muy zibilé yow moom war na xam ne kii ku mu bëreel war na bëree yow Tapha Gueye. Mhm. waaye nag soixante-douze heures am yooyu noonu tey dafa teg teg miis si te ñëw rajaxee tournoi bi daan mbër yi ñu fa indi mujjew ñu ko yegal bi ñu demee ba toll si ay demi final la ñoom Bécaye Mbaye débarrassé seeni i kana seen i seen i affaire yow ñoom ñu tas seeni plateau jóg tas làmb ñu na xam ne bu ñu ko yegalee si te jël ko Tapha Gueye moom xam na li may wax bu baax moom moo ñu fekk ba si watu rond-point bi noonu mhm. yëkkati xaalis jox ñu nañu jël leen fi oto waaye fekk boobu noonu yenn booy yi i xaw nañ mer jàpp si siège yi ñii yanu ay siège jaar nii ñii yanu ay siège jaar nii. Mhm. xam nga li ma la isa. te mhm. kon kooku noonu tey yow bu liggéey si làmb ba làmb war ko boolee Balla Gaye wala Modou wala keneen ku mu mën a doon tamit yow tey yow war nga man a taxawee ni làmb la na kooku jàmbaar la. Fallou ñun Tapha Gueye suñu papa la amul leen loo xam ne nag dañ ko si wax pour dépasser ko wala pour wax ko si lenn. Mhm. waaw mais làmb ku si nekk sa yéene ngay wax rek ak li nga bëgg. nekkul loolu la suñu borom di dogal. Mhm. Fallou ku si nekk li nga bëgg li ngay yéene moom nga am mais nekkul loolu la suñu borom di dogal. Fallou Siteu tey li nga def yàlla suñu borom moo ko def Siteu dafa xuus. Mhm. yow tey mënoo daan Papa Sow nii la la dëgër de am ku lay bañ ci làmb. déet. Fallou jëlale naa ñi daan ci ginnaaw waxuma leen. waxuma ñoo ñëpp du ma tuddaat foofu keneen si ñum daan ñun loolu jéggi nañ ko mais mënoo daan Papa Sow champion bu doy ni Papa Sow ku nekk xam Papa Sow si xadar ga njàmbaar ga bëri jom ja fit wu rëy wa mhm. Siteu ñëw bis boobu ni mu toll bis bu rëy boobu noonu Siteu daan ko si jël bu ko champion musta daan tey dañoo jëloon favori musul daan mhm. te Siteu xamal ta sànq si biir wax maa lay wax naa la dama bëgg mu bëree Balla Gaye wala Modou Lo mhm. waaw ndax yow ñooñu tey man ñooñu man li ma gis tey ñu koy imposé booy yi teel ñoo ñu fay yoo ma ne li ma gis ñu koy imposé booy te booy attanuñ ko ñun dañoo attan lool. Euh, jërëjëf jërëjëf amaat mbégte kontaan bu baax a baax di gërëm euh, ñi nga xam si ni ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi yëpp yëpp yëpp ñu leen di gërëm bu baax a baax maam mi dama koy teg sa loxo nga séddale ma ko sa ñaari sa ñaari sa ñaari góor yi nga xam si ne wax dëgg yàlla ñoo ñoom nga àndal te ñoom ñaari ñoo ngi tëkkoonte fii waaw dama li jël ni ma jox jox leen ko rek waaw bu ko defee nga teg ko seen loxo di gërëm ñëpp maa ngi gërëm Modou Gueye président ay speaking di la ñaanal sunu borom dafa la jaamu suma xarit suma lépp di gërëm suma papa Passaar Passaar maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ñaanal madame Sarr suma xarit maa ngi lay nuyu sunu borom defal la ami defal la jaam Ndeye Amy Ndiaye jërëjëf Penda Ndiaye jërëjëf mbokk yi di leen jox dig daje beneen yoon ak leeral TV leeral point net suma yaay naa jërëjëf.